may ban ngi lay nuyu dama yoroon sama ay rak yar leen ñu ànd ak man nekk xale yu ba déggal xale yu baax yàlla def yar bi ma leen yar sama rakk bu jigéen ñëw ñu def leen di yóbbu euh, bitim réew Nigéria bi mu leen yóbboo ñu tëgg ak ku mu yar sama xeet ñeewante xale yi lool ci biir ñeewante bi wër toog naa presque 2012 2002 ba ba fa waxante yow ni déggatuma xale yi déggatuma Ndeer Mbuub mii sama rakk déggatuma Boubacar Mbuub mii sama rakk day tudd Mamadou Guèye mii sama rek te ñoom ñi ma bokk leen yar sama yaay dee. yaa leen yoroon man maa leen yoroon. ci sa biir sama biir kër. ay jigéen la ñëw ak ay góor. be eh, ñetti góor la ñu woon. ku mhm. jigéen ko mu Arabie la nekkoon mais bi mu jógee Arabie Saoudite ñëw man la nekk. Mhm. ba yàlla si Dakar léegi nag yar boo yar ba leen yar nee na xeeb xeeboon na ma ci lool ba gëmloo xale yi ni caaka ni ñu leen yaree du noonu su ñëwee Dakar mu jël ñaar ñuy sumbur pour ñaari nit man sama kër damay toog tey am maam mburu suma maam sëmbi mu gëm noo xale yooyu ñu leen Sacré Cœur 2. Mhm. léegi nag xale yooyu laay ñaan Mamadou Gueye mi ngi Mali nen wala Boubacar mbub nee na mi ngi Guinée Bissau man seen mag maam Caaka Mbuub maa ngi ñaan fekk ñu may gis si tele bi nañ ma sarax ñu def signe de vie ndax naa léegi maa ngi ñaan Ndeer Mbuub tamit ak njabootam ñu wax Mati Dramé ak Aïcha Dramé ak Mohamed Dramé su fekkee seen yaay Caaka gis nañ ko ci télé bi nañ ma sarax bi sabilillahi benn dëy yàgg na. xamatuma leen xàmmeetuma leen nañ def signe de vie rek ndax man sonn naa. sa doom yi say doom dañ jee bokk. samay samay doom yi rek lañu mais mbéy ba fa tëra di. an sa rakk sama rakk moom moo yóbbu moom moo dem yóbbu ay njabootam mooy Ndeye Ramane mhm. moo jur Mouhamed Dramé moo jur Mati Dramé moo jur Aïcha Dramé. Mhm. waaye léegi samay doom bu ñu màggi ëllëg dal ci kaw xale yooyu ëllëg fekk ba bëggante di dina rafet. Mhm. te loolu yëpp ñu ngi ci àdduna bi léegi may ñaan yàlla rek. yow sa doom yooyu sa rakk yooyu soo doom yi nga jur da cee bokk. déedéet. sa rakk yoo bokkal ndey. ndey ak bàyyi ñoo ci da nga yaroon leen. dama yaroon leen ñoo ci yor leen. waaw yar ba nekk ay mag. bu ñu nekk ay mag jëmm. waaw ndax ku ci mel ne bàyyi na fi ne bàyyi bi na fi jabar ak doom. Uh-huh. Uh-huh. Mamadou Gueye kese moo ci dem ak célibataire. waaw mu yóbbu leen pour ñu liggéey mu pour ñu liggéey. waaw dem ba Nigéria am foofu ñii dem nañ Mali ñii dem kattu tagu naa xam kattu naa. Uh-huh. ci dëkku ñag ya xamatuma ko dara. waaye na ma sarax ku ci dégg koo ci gis rek na nga na nga def signe de vie maa ngi dagal. Mhm. suñu la bëggee jot nañu wax sama numéro ci kër 507 07 80. mu sarax ma rek ngir yàlla na sax seen nag